waaw maa ngi ma buux loolu li ko waraloon Saliou Ndiaye mais nga xam ne mooy gaynde xel koom zone euh, Fata day ngénte ba muy ngénte nag léegi sëñ ji Fata ñëw fa jënd fi ko jënd ne ma mun bu ne ma jox waaye boole ko géwél yi nu génn ci biti nag ah sëñ nag maram Diouf ko jur daal di ko làmbaay léegi nag Sall Ndiaye sëñ Sall Ndiaye topp ko nan ko daal yaa nga làmbaay daal yaa nga ñibbi daal yaa nga làmbaay sëñ bi ni ji fi ko jënd mu téeméer ko teetaloo ko mu ne mbu loomee boo yow mbir ma saaral dem na maa ngi maa ngi nii waajaa ngi nii je suis Mboub le représentant des des de Touba Mbacké et monsieur Thiam suñu sa set na suñu xel dal na kontaan na. ndax Mboub dootuma kaayo ndax Mboub 2007 leen aéroport Diass archive nationale ba ku ko bind le premier pèlerinage à la Mecque alaaji masala Thiam ko ci soxna Momi Kébé Mboub daanoon naa. maa ko jëkkee dem Makka fukki yoon dem naa ba taaf kaaw ga def sa sa ko dikk. fa mu daloon ci Makka daa sori man hôtel man hôtel bi ma dal moo tiim Kaaba ga yonent bi tam bu lal moom laa jàkkaarloo moom moom mooy. naat si gars yi si gars rek yéen daal yéen a ngi jàkka télévision yëpp yéen a ci gën nag yéen sonal a a yaa ngi ñiibi dara yaa ngi lambaay dara yaa ngi ñiibi moom buub loo may bu mom buub danga may buuxa man de dama ne daara yaa nga làmbaay daara yaa nga ñibbi